bi dee lan moo tax mu nuy loolu gëm leen yàlla te wóolu ko yàlla moo leen téye boppam jabarkat xamul dara moo jabar dina ji mu àndal loolu yow sala boobu boo gëmee yàlla wóolu ko yàlla xam-xam fuuf loolu euh, yàlla wane na ko ci jamono yonent yàlla Suleymaan xam nga boo dellu fee ci a da ngay a euh, euh, Balxiis bi nga xamee ne mi ngi ñëw léegi yonent yàlla Suleymaan di ko xaar Balxiis dama nekkoon si jigéen boo xam ni ren am alal lool am na or am na jama yaa ngi dégg taaralo yaa ngi dégg am na ay gàngoor yu mu àndal am na ay tak léegi nag bi mu ñëwee ba dugg kër Souleymane Souleymane bi mu ko xoolee ak ay bagaasam Souleymane dafa xaw a luppe parce que daf koo xool mu xam ne kii alal mënu ko téye te Souleymane foogoon na ne jamono boobu moom moo ko affe àdduna ci alal mais bi ndaw si dugg see rek loo xam ne kii vraiment ak li mu àndal nii këram du fa dem am na nu mu demee kii alal mënu ko téye miracle moo koy mën moom xam na ni miracle rek yaa ngi dégg moo ko mën a téye léegi nag nga daal di gis léegi ana luy xew Balxiis bi muy teg tànkam ci peron bi Souleymane dafa xaw a luppee ndax li tax loolu mooy li mu xamoon ci xol bi moom la génn ci gémmañam mu ni ay suma jotoon ci fauteuil bi muy toog wax ji daal di génn ci gémmañam am benn jinne bu ko dégg ak benn nit jinne bi ne ko balaa ngeen di jóge fii mën naa ko indi te jinne moo gën a gaaw courant ndax diggante asamaan ak suuf ah voyage bu cinquante mille ans la ci vitesse pour mu laal asamaan laal suuf que ci il faut cinquante mille ans te jinne dañ doon naaw bay tafu asamaan di déglu wax yu kon jinne gaaw na lool waaye malayka moo ko gën a gaaw loolu mooy li nga xam ne moo ci nekk ndax la am na lu xew foofu jinne bi nee na ko mun naa ko indi balaa ngeen jóge fii am benn nit bu ko ni mun naa ko indi ci xef xifi kooku da ñaan yàlla xoolal bi ndaw si teg tàngam avant muy magasu xoolal euh, Souleymane dafa gestu rek gis fa tey baraxis muy ñëw fa tey bi la doon xool Souleymane ne ko bismillah bi muy toog mu ne ko sa fatee la yàllaa ko indi néew nit doo ko indi def ni yàlla moo ko indi bi isnillahi taala kun fayakoon rek mu nekk yàlla won nañu façon bu ne xoolal maa Ibrahima keroog bi mu leen doom pourtant bi mu jëlee paaka bi teg ko ci putu xale bi la waaye ba mu rendee ba pare ne alhamdulilahi rabbil alamin xale bi sant ci gannaaw mu gëstu ni gis xarab ci la gars yi royee tabaski ba léegi yàlla daf lay won ni intervention amul luppe gis nga réseau bi wa waxtaane fii bépp njabarkat bu jógee daara ji da ngay dof ba keroog ñu ñibbi doo nekk dara doo nekk dara dara dara ren di ngeen gis ay njabarkat yu tëdd du ñu jóg ba keroog ñu dee parce que daara ji boo ko jógalee dootoo am jàmm dootoo am jàmm dootoo am jàmm ilaa yawmi diin xanaa nga tuub loolu mooy sécurité boobu la ñuy doxee ñun loolu mooy li nga xam ne moo ci nekk moo tax kenn mënaluñu tus fu ñu neex lañ koy dugal fu ñu neex lañ koy teg ñoom njabarkat yi la ñuy waxal yaa ngi ñoom ñoo tax dëkk bi ñoom ñoo yàq dëkk bi ñoom ñoo tax papa ak doom yi sax mënatu ñëw jubóo ñoom ñoo tax dëkk bi moom ñoo tax doomu